baaxoowuma su ma ñëwee si rajo walla ci tele di tudd beneen politicien walla ma yëkkati kàddu yu ñagas jëmale ko ci moom 2012 euh, bi ñuy dugg ci làngu politique gi am na nit ñoo xam ne sax yaakaaroon nañ ni président Ablaye Wade moo ñu jox xaalis ñu ñëw di politique ndaxte dégguñu ñu wax dara lu ñaaw jëmale ci moom am na ñoo xam ni jàpp nañ ni sama doxalin ci wàllu politique adapté wul ak Sénégal ndaxte nee nañu duma xaste duma en tout cas ni gaay defe duma ko defe te sénégalais yi loolu xamuñu ko kon su ma jugee di wax ci beneen politicien du wàllu polémique moo ma yëkkati te amaana su ma yëkkatee kàddu jëmale ko ci Thierno Alassane Sall c'est parce que justement dafa am foo xam ni dama ko fa jàppoon ci langue politique gi yaakaar ni am na noo xam ni nga xam ni la mel mais ci li nga xam ne la jëflante ak suñ naataange réew ci li nga xam moom la jëflante ak man Damel may safal donc dama naan boo jógee ci lii kan nga mën a wóolu ci langu politique gi ndaxte nit ki su ngeen di toogee di waxtaan ah, waxtaan wi yépp li koy tënk mooy jikko yi waxtaan wi yépp li koy tënk mooy fit wi nga xam ni moom moo war a tëye réew mi waxtaan wi yépp li koy tënk mooy Sénégal mën naa baax war naa baax te dina baax ñun sénégalais mais euh, politicien boobu boo ngeen bu dem élection yàlla may leen ndam yépp gisandoo bis président Macky Sall di président Sénégal buntu siège à APR le ñu donc loolu démb la euh, nga nekk militant côté Grand Thiès wala côté hôpital régional fekke nga ko yow bu dee Thiès waa nga n'est que, nekkee ci buntu siège bi nekk ci kaw oto yi Thierno Alassane salle bi victoire bi leeree dafa jël micro bi jox ma ni madame mel, mi victoire bi annoncé ko Thiès waay ma jël micro bi delloo ko ni ko fii sa kër la ndax siège à perle da ngay wax ba pare ñu doog wax biñu démé promenade des Thiessois Thiessois yi bari woon nañu lool mag ñi fa nekkon syndicaliste ñepp ñépp ni d'amel moy def discours bi ma def discours bi promenade des Thiessois nit ñi daal di mais biñu ñuy ñëw promenade des Thiessois ñun ñoo njëkk klaxoné klaxonné biir Thiès ni président Macky Sall Bobu. na maa ngi tierno ak Thierno Alassane Sall ñu école Cité Lamy bi ñuy dugg école Cité photo yaangi fi tol nañ ci délégation wu vingt personnes vingt personnes yo xamni tierno Thierno Alassane Sall la ak sécurité donc ñuy ñaari personnes man ak sama sécurité donc mu toll ci au moins quinze jeunes xamna ni mais lan lañuy def ak ay euh, jeunes yi pas autant de sécurité parce que tout simplement euh, fi Sénégal élection yi responsable politique yi donc amul état bi di len jox une garde rapprochée Té ku nek xam na ni yëf yi eu, à n'importe quel instant loolu mo waral tax ñuy am sécurité yoy donc man and naag responsable paire de premier plan responsable des cadres de la paire ñuy sécurisé suñu ay vote mais délégation 20 personnes moom benn élément de sécurité la ci am quinzaine bi ci des yëpp samay élément de sécurité la té ñooñu ñoo xamni la da nga leen di assumer naturellement yaa leen di transporter yaa leen di fay ñu ñëw ñoo njëkk klaxoné klaxonné biir Thiès ànd sillonné les rues de la ville ñu nekk ci sama kaw auto wàccu fekk ko ci otoom moom moo wàcc fekk sama sama kaw oto ma content ci lool ñu and célébrer la victoire ni mu waree ba loolu weesoo xanaa ni loolu lépp sax sori na ndaxte balaa ñuy yegg ci yooyu yépp ay réunion yu réunion defandoo nañ ko ensemble sama salon bi ma toog tey jii di wax toog nañ fi mu rafetlu discours ba nga xam ni yëkkati naa ko ci meeting bi ñu def fii juste avant le premier tour mooy bi may tudd njàmbaaru waa Thiès njàmbaar goo xam ne dañ ko jëlee ci suñu maamu ajoor ajoor yi ñu xam ne Thiès du dëkku caaxaan Thiès du dëkku dëkku tappale mu rafetlu ko lool réunion yi ñu defandoo ensemble du benn du ñaar euh, toog nañu benn réunion ñuy nommé président commission finance su Benno Bokk Yaakaar ci premier tour élection. Euh, présidentielle 2012 du deuxième tour B. mais bi monsieur le ministre Augustin Tinné, Damel Damel président de président commission finance désigné l'ancien ministre Tcherno Al-Sansal m'ont validé donc choix bobo. kon loolu fait indiquer que ni une campagne ensemble La campagne de weesoo nañu mais si ko fal ministre amul benn yoon boo xam ni monsieur le ministre Thierno al Sall am nañu opportunité toog liggéey ci dara du ci coalition bi dara daje Paris aéroport par hasard muy Sénégal muy Sénégal mu sama numéro téléphone m'ont changé ma tontu ko tontu bu gàtt ni ko man sama numéro téléphone du changé ndax téléphone bi sam bàyyi mu wàcc liggéey ma yor téléphone am kon téléphone boobu du changé. bu élection locale 2014 yu jotee ñu waxtaan ñu ne nañ gisante pour investiture yi liste yi ak yu demee noonu. ba ñu jàpp jour jàpp heure dinañ waxtaan ñu xaar leen fii Thiès bi ñu leen gisul ñu woo leen mi ngi ànd ak boobu benn jigéen bu nekk APR responsable di PCA tey ñu ni ñu ñu ngi yegg si bi ñu toogee lu mat une heure gisuñ leen ñu wootewaat bi ñu woote waatee jotuñu kenn kon loolu boo ko toppee muy stratégie boo xam ne mooy dañuy dugal sa bopp que ni ñu ngi ñëw liggéey ak yow boo sàgganee doo fagaru ngay xaar te finalement du ngeen liggéey yow doo mën a dem élection mais ñu nag pare woon nañu sóoroon nañ loolu lépp ba loolu moo mën a tax ñu bokk ci élection yi beneen bi nga xam ne aussi muy lu doy waax lool ci élection 2014 yi ba mën naa ni à 4 5 jours des élections am na jeune boo xam ni moo nekkoon sama protocole su ma nekkee sama oto mooy toog sama wet mooy jël rendez-vous yi mooy gérer les appels téléphoniques su ma demee visite quelque part moom mooy noter donc le contenu de la rencontre mais jeune bobo, bi de demee bañ ni élection yi deux jours moo ci des mais jeune bobo, woote meeting ci Karchebi. quartier bi ci mbedd bi nga xam ne fii mu wooteel ko fi

mais quand man euh, su ma dellu tête, jeune bob cinq jours avant les élections il était encore avec moi 48 heures il est avec Tcherno al est-ce que dafa wor dem ci Al Sansal est-ce que Tcherno al-Sansal piloté depuis le début du ko duggal ma ci Damel ak ay équipe

fii lu fi lëndëm sudee ci wàllu tubaab dañ naan am na fii lu incohérent am na fii un trou abyssal ci diggante li ñuy wane ci biti ak ni ñuy doxalee ci biir ñun nag buñ ñëwee ci politique dañoo ñëw politique si ngir seq ak sénégalais yi dëgg tamit taxaw ngir képp ku bëgg a nax sénégalais yi ñu taxaw ni leen lii ay nax la ay tappale la ay caaxaan la su dul woon loolu dañ ciy noppi mais bu ñu jàppee ni wax mën naa gaañ suñu askan taxawaay mën naa gaañ suñu askan ñun suñu rol la ñu taxaw ni lii suñu xel jàpp ko képp ku fi wax ci wàllu ngor jom ful la ak fayda nanga wax wax ju leer parce que ñun bu dee am na loo xam ne gis nañ ko ci sa doxalin te dëppoowul ak loolu dinañ ñi li ñu xam ci yow dëppoowul ak loolu loolu nag buñ ko waxee buñ ko defee mooy ni tamit beneen politicien bu xam ci ñun ay tappale xam ci ñun ay caaxaan dina ko mën a wax wande fa muy aw ba fekk ñu ñuy tappale ba fekk ñu ñuy caaxaan ba fekk ñu ñu digee lu ñu deful wala ba fekk ñu ñu digee lu ñu mënul yaakaar naa ni

moom moo koy njëkk a yëg suñu naataange réew du wor du wuruj nekkuñ ci tappale nekkuñ ci caaxaan te am nañu fit gu toll ni que képp ku ñu gis ceew ngay am doxalin boo xam ni dëppoowul ak li ngay woote dinañu wax li nga xam ni moom lañ ci xam